coowal Simon Thier kilifa ci mbirum seen vidéo yi lëmbee réew mi noppeeguñ ci ci leeral libération fekk nañu waat ay vidéo ci li mu juróom-ñett yi gën a doy waar ci téléphonu Thier nar a gën a dugal kilifa ak Simon ñu fàttali ñoom ñett Euh, nga xamante ni muy Thier muy Simon ak Kilifeu waxtu wi nu toll nii ñu ngi ci loxol yoon ndax buñ fàttali ko mercredi bi weesu lañ leen mandat de dépôt Simon ak Thier donte seen avocat yi nee nañ dinañ def recours ndax itam bi noppee ci ndax dañoo bëgg leeral askan wi ne mbir mi complot la bi nga xamante ni wax dëgg fa la ñoom dinañ ci gën a ñëw ak ay leeral waaye comme mi ngi ci loxol yoon fi mu ne nii dañuy déglu yoon fañ ca nara yam loolu la avocat yi leeraloo waaye ñu fàttali ne ñett vidéo ñoom ñoo génnagum waaye nag lii mat a leeral mooy que ni euh, te euh, xibaar gi mooy juróom-ñett vidéo amaat nañ ko ci maanaam téléphone Thier te mun nan lañ gën a enfoncé génnagul nag waaye nag bés bu génnee lan la nar a doon xam naa nar na gën a doy waarate parce que nee nañ dinañ leen gën a dugal gën leen a euh, li ci gën a doy waaraat moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ñoo lànk ñoom it dañoo fas yéene tamit yuuxu wax ni daal askan wi dafa mel ni dafa am ñaari justice yi fi am maanaam une justice boo xamante dafay demee ñaari vitesse ndax ñoom li ñuy sàkku wax waxtu wi ñu mooy que ni nanu libéré seen mbokk yooyu nga xamante ni ñoom ñooy activiste Y'en a yi euh, te bàyyi leen wala maanaam Bougazelli dellu prison ndax buñ fàttalikoo tamit yàggul dara Bougazelli fii leen ko jàppoon ci ay faux billets waaye jamono dox na ñu bàyyi ko mel na ni euh, xanaa dafa xaritoo ak nguur gi wala la mu far ci ñoom moom moo tax ñuy doxalee noonu et tamit euh, réew mi toll na foo xamante nii léegi daanaka lépp ci foo lay doxee ci ay mbuxum ci ay corruption ci ay tàppale tàppale yooyu rek yemul ci activistes yi nga xamante ni dañ leen tuumaal wala Bougazelli mi nga xamante ni dañ ko jàppoon flagrant délit waaye dafa àgg ba biir assemblée nationale nga xamante ni ci ay député nga xamante ni tey jii nii ñoom ñu ñu élire leen euh, jox leen. ay jumtuwaay yombal leen seen liggéey ci ay privilèges yoo xam ne defal na leen ko waaye wëlbati nañ privilèges yooyu noonu euh, xaw ko gàllankoore askan wi ci ay trafic yi nga xamante ni jamono juñ ni moom la ñuy waxtaanee euh, suba ak ngoon ñu leen di euh, bàyyiloo xel ni ndax réewum Sénégal dafa jël tànku continuer ci li nga xamante ni moom mooy jubadi wala li nga xamante ni mooy trafic wala dafa am ay complot yi ci am ndax ñenn ñi loolu leen jàpp ci ñenn ñi nga xamante ni danoo bokk ci dossier bi muy ñoom activiste yi waaye lu mu ci mën a doon rek mbir maa ngi ci loxo yoon yoon xëy na jàpp nañ ne dina def euh, li ko war ci euh, dossier bi di leen fàttali ni juróom-ñetti vidéo lañ wax ni fekk nañ ko ci euh, téléphone Thier mu nar gën a dugal waaye Y'en kon mbokk yi ñu xaar rek xoolaat lan la nar a doon